asalaamaaleykum lu xew TV maa ngi di leen ziar bu baax ah kontaan naa ci bi neex na trop mais madame Diagne daal yërëm naa ko xaw ma kañ lay dund bànneex moom it tamit mais commencement am la mu wane rek moo feeñ foofu mais madame dimbala ñu ci rob bi ah madame sa rob bu tey garaaw na day sañse tuuti ñaareel day sañse dëgg neexut fii lu baax lu ne ñaareel yee ko moom ah man de waaru naa ci biib goro nee na Marème Diagne boo seqateeg seex dara jàppal ne man mii di ndeyam la ko defal ah ça veut dire que ne moom moo li li nekk ci seex moo ko ci def ah bay ba Marème Diagne nga jug nag defaraatal sa toogaay bu baax waaw. salaamaaleykum salaamaaleykum waa maîtresse maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp. di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may xéewal yu baree baree bari yàlla musal ci làmmiñ ak cat yàlla defal ñu mucc ak mucc la ak mboolem bépp jullit ma ñëw ci li nga xam ne ni mooy suñu série maîtresse ah, may ñëw ci ki nga xam ne ni mooy mère Diagne mère Diagne moom sama yaay Diagne la sant waaye njaaña ñi moom bonewuñu nii bonewuñu ne man mosumaa gis nit ku bone nii nit mosumaa gis ndax mère Diagne nag tëdd njaaxaanaay xam ne mareem goroom la mareem goroom la ci kanam tuuti lépp day jeex yàlla mën naa def daal mareem am fa doom te dafa war a am doom sax balaa série bee gën a neex dafa war a am ñetti doom yu góor su ko defee loolu noonu dina permettre tamit série bi day day gën a toj ndax laal la moom man xàmmeetuma ko moom ja dugg na ci gaalu bon gi te lab na ca ndax mère Diagne koy conditionné ak xaritam boobu noonu waaw Marème daal moom man dama koo yërëm dama ko yërëm ndax amul ndey amul kenn Cheikh Diagne rek la am kon Cheikh Diagne ko jàppale biram tamit moom it kenn xamul lu mu bëgg kenn bëgg noo bokkee di ndey ak baay ba pare di ko xeex man daal man daal man daal waaru naa jommi seen série jikko yu bari la fi indi xaw ma nag am na ñu bari ñoo xam ne gis nañ seen bopp ndax seen jikko la li seen jikko rek moom la ñuy joué dëgg yàlla am ñun daal kontaan nañ ci maîtresse yàlla na yàlla def jàmm yàlla def xéewal mucc ak muccule asalaamaaleykum war la yàlla point net waaye participer ci euh, maîtresse d'un homme marié ndax tout le temps dama koy suivre duma raw mukk duma nangu mu raw ma ndax dama koy bàyyi xel bu baax su ma rawee sax damay dugg YouTube di ko seetaan mais du ba léegi dama koy seetaan damay gis lu ci war a wax mais tey daal moom am naa tuuti loo xamante ni mën naa ko ci participer mooy que li ñuy def ci nuuraa loolu day yàq day yàq day yàq dëkk kii bi xale yi koy seetaan ndaxte tey Noura li muy def nii yombul am na nag gaa fi luñ ci joué théâtre rek am naa mais li muy def nii yombul waaw xale bu ndaw judoogoo nga bëgg ne yow lépp lu sa yaay war a manifester wala lépp lu sa yaay war a venger wala lépp lu sa wax a def rek yow yaa ko koy defal ah laa loolu moom nay sul naay sul dara ñu nga dañuy defante comme kii quoi moom mooy ci ak Marème te loolu du yoon kanta mère bi nag moom kooku moom yaakaar naa mis nañ ko ndax xool moo dul bañ ba pare di bëgg déedéet te moo ko dal ci Marème da ko bëggul bëgg ko kon nag ah moom war nañu changé waa tuuti rek méthode de vie ci film bi ndax dese na cee kii am sens trop dese na ci am sens dese na cee am sens ndax li muy def dafa ëpp trop dafa ëpp ci xale dafa ëpp trop ci âge bi mu amee su fekkoon tey dafa romb âge bi mu amee mën nga d'accord mais ci âge bi mu am ak li muy def li muy def moo ko ëpp moo ëpp âge am moom waa moo tax nag. comme que mënta ñàkk te dañuy part dañuy seetaan di suivre du ñu raw suñ ko seetaanu ci télé bi seetaan ko suñu connexion te dañu fi tegal tam numéro whatsapp boo xam ne pour boo ci la metti nga participer kon war nañ ci war a a wax waaw merci. asalaamaaleykum nuyu naa leen wàllu xew TV na ngeen def ah, jërë ngeen jëf kii seen benn déglukat la nekk Gambie di leen déglu chaque fois ah, série maîtresse bi léegi laa ko door a seetaan ni YouTube. Euh, kontaan na ci épisode bi trop waaye lennam rek am ci naqari maire Diagne quoi ci kaaw ki Marème maire Diagne mënut fexe ba bëgg Marème loolu laa mënut a comprendre Marème lan la def maire Diagne ba mënu koo bëgg pare maire Diagne mënut a forcer pour mu fase Marème Cheikh dafa takk Marème ci farataak sunna la ko takk mais mënu ko forcer ne fase ko te yaay ci lu ma xalaat si suma xalaat yu gàtt yaay yaay day am si place yi yaay ak doom mais munoo forcer sa doom ne takkal kii fasel kii loolu laa mënut a comprendre seex nu mu bon bon bon dégg sa yaay la mais da ngay taxaw woon ko ne yaay place yi yaay am na place yi jabar yi am na te yaayam buñ ko doon maltraité comme ni muy maltraité Marème nii non du doon yegg si fii. kon maire dafa war a xam ne ne see toll na fu mu toll na ko bàyyi comme que sey nañ ba pare na ko bàyyi muy jéem a yedd marem uuf marem comme num uufee kee laal la mais munoo bëgg a laal rek bàyyi marem te bëggoo marem loolu moom ci suma xalaat ju gàtt maire Diagne moom nu mu ko doxalee daal moom neexul dara dara dara bu doon man la suma yaay mu ne la doxalee nii waxuma ne dinaa ko wallu ko naxari waaye dinaa ko won ne yaay place yaay am na place doom am na te bu ma xase ba tàkk munoo ma munoo ma forcé ma fase suma jabar jërë ngeen jëf ci suma xalaat yu gàtt loolu laa xalaat asalaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi leen nuyu waa maîtresse kenn ku nekk si tur ak sant bu baax waaw mère Diagne nag tey moom mère Diagne lay waxal mère Diagne yow tamit nag bàyyi bàyyil Marème mu sëy sëyam mère Diagne bëgg sa doom yombul bàyyil Marème mu sëy sëyam bëgg naa mu sëy Marème moom wax bëgg naa sëy bëgg na Cheikh Diagne bëgg na mais Lalla tamit na jéem a xolam bi def ci Marème na ko jéem yaatal bu ko yaatalee rek seen kër dina neex mais moom moom moo yóbbu wujjee gi foo xam ne yeggut fa waaw jërë ngeen jëf maa ngi leen nuyu leen TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen nuyu bu baax a baax di rafet di seen liggéey macha allah am na solo di wax nag tey som bi tey macha allah macha allah macha allah neex na trop trop trop lenn daal moo ma si metti mu yaay seex yaay seex na bàyyi nag na bàyyi nag Mariam mu sëy Mariam deful dara waaw. laala na takku fitam defu fi jeeg wujjeeg mareem jigéen mënul wax ne du mu am wujj benn jigéen mënul bañ a am wujj waaw jigéen bu baax day am wujj mën a defante waaw xëppante asib filfilaale waaye yow ñu takkal la wujj rek ngay jooy di yuuxu ba ñëpp dugg ci di la xeexle laala daal moom ah kontaanuma si moom dara waaw mère bi nag na bàyyi mareem mu sëy sëy moo gën waaw mère bi moom vraiment soof na trop mag day yem place mag mag day yem place su mag goro day yem place su goro xaar ñu togg mu neex ñu jox na nga lekk mais vraiment mais du moom sonal na Mariam trop fase ko pour lan ni takk jabaram nga naan ko fase ko fu ko teg salaamaaleykum sama waa groupe maa leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant neex na tey film bi neex na neex na xaritu Lalla bi nag kontaan naa ci moom trop trop trop am na la ci boppam waaye mère Diagne tamit nag moom contre naa Marème trop nag waaye moom ànduma ak moom foofu moom ànduma feeg moom moom ni muy def Marème moom ànduma feeg moom loolu moom bañ nit ki ba xam ko moom ëpp na moom loolu moom ëpp na moom waaye xaritu Lalla bi moom tontu bi mu tontu xaritu Marème bi sama xol sedd na ci guy am na fulla am na fayda asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Xew TV nuyu naa leen ziar leen bu baax di leen ndokkeel di leen di kontaan te wax ne épisode bii nii macha allah am na solo trop trop trop mais Cheikh Diagne tey jii su may wax ci seex Diagne laay ñëw parce que Cheikh Diagne su deful attention rek këram dina tas ndax góor bu xasee ba yor benn jabar rek dafa war a jël ay responsabilité waxatuma laa nag mu yoree ñaari jabar nga xam ne ku nekk say façon te këram bis buy tas ñett ñi ñoo ko nar a tas premièrement muy yaayam yaayam defu rôlu kilifa ñaari xaritu jabaram bu ma sañoon Cheikh Diagne dina dégager ñaari xaritu jabaram yi jéem waxtaan ak ay jabaram xool yaayam nan lay def moom xool nan lay waxtaanee moom ba mu génn ci digganteem ak ñaari jabaram loolu Cheikh Diagne su ko defoon rek mën na am dina am jàmm ci këram mais kanta deful loolu jàmm këram du mas a am jàmm parce que ñaar ñi ñu ngi wujje ñaari xarit yi ñu ngi ca yaay ji mu ngi si ku nekk ak fi ngay féete kër bu am loolu rek ci tas lay jëm te Cheikh Diagne yaakaar naa ni lii bu continuer këram dina tas loolu moom xalaat naa ko trop kanta Jalika nag su ma sañoon mu tey parce que ragal naa ni bu duggaatee si yem bi dina dundaat lu gën a pire que la mu dundoon parce que gorom commencé na am commencé na duute daal bañ ko ne ñaari doom la am kon nag su ma sañoon Jalika dina teey bu baax a baax a baax parce que bu duggee tamit ragal naa ne dina dund lu gën a metti lu mu dundoon fee na ah, bi daal tey ji moom lépp am solo xëy na guddal bi lañuy bañ rek mais lépp lépp am na solo yal yàlla fay leen rek si baak Seydina Muhammad asalaamaaleykum waa lu xew tv kër gi ñoo ngi leen di nuyu waay di leen ziyaara di leen wàcce seen wàccuwaay lu bari di leen ñaanal jàmm bu baax te di ko sàkku ci yéen di leen jaajëfal lu baree bari di rafet lu seen liggéey yana yàlla yàggal seen taxawaay bu baax di kontaan bu baax ci série bi maîtresse d'un homme marié ñun waa moroom ñëpp ñu ngi leen di kontaane bu baax di leen bëggee ak di kontaan ci yéen di rafetlu seen série bi bu baax ah série bi moom neex na trop ñu ngi koy suivre bu baax waaw waaw di wax ne Marème ah ñi ngay joué sa am na maana yow daal bul xuloo bul xeex noonu dong la noonu la yàlla baax na yàlla bu ndànk-ndànk rek dina ñëw yàlla dina def def li nga am li nga bëgg yow moom sëy rek a la tax a jóg wane nga ko noonu de lañ ko gisee ñun nee nga daal sëy rek moo la tax a jóg te dangay sëy ba ñëwaat dangaa sëy si kon foofu la fi nga teg bouton bi foofu la bësal bësal bi waaye kenn du mère la belle mère ah mère Diagne yow tamit ñaan ñëpp say goro lañ ñoom ñaan ñëpp nga war a bëgg ñoom ñaan ñëpp say doom mooy seen boroom kër kon nag booleel ñoom ñëpp bu amul ko ci faral kii laa faral kii laa bëgg kii bëgguma ko ak li nga mujj a wax loolu unge billahi mina sheytaana rajim ah loolu waxuwul te duy fu mag booleel ñoom ñëpp uuf waaw ah, nuuraa tamit ah Noura kontaan nuñ ci yow dara dara dara xale day dugg ci waxu mbirum xale lii du mbirum mag du mbiru xale affaireu mag la waaw continuer ni nga nekke woon rek noonu neexoon nañu torop sax yàlla baax na bul wàññi bañe bul wàññi bañe ci say waaw Cheikh Diagne foofu mu ko kal foofu la waaw sa yaay sa yaay la de waaye tamit li tax li tax ngay jël sa jabar di ko wacc ci moom moo la koy wan wala mu jëf la ko comme ni nga ko waxee rek kontaan nañ bu baax ci xaritu Marème bi waaye xarit day sincère waay ñi la le ku la ko rokkin nga debin ko ko nan dong la moomuñu kër gi yaay numéro en un la mooy numéro un Marème Dial mooy numéro deux kon ñoom ñaan ñëpp a yem ñoo yem grade ci kër gi ñoom ñaan ñëpp jabar ci kër gi kon nag amul kenn kuy xatal sa morom wasalaamualeykum wa rahmatullah kontaan naa ne leen bu baax. salaamaaleykum waa Sidi Marème na ngeen def ñu ngi leen di moom. Hmm. série bi daal Marème ay bëgg a ñàkk fayda moom ndax Lalla moo am na dignité boppam bu doog téye boppam rek la ci Marème waaye Marème moom dafa amul benn classe yi mu ñàkk fayda lay def fekk Lalla ak ay nitam ngay dugg ci seen digganteeg di wax ak di ñàkk sa bopp fayda di sabooteeg yooyu yooyu daal du cëru du cëru nit ku yiw daal du cëru nit ku yiw te Marème moom mu gaar dëgg yàlla réglé moom yàlla def ko ci moom Marème réglé wul daal. asalaamaaleykum. wàllu xewteef ma leen di siyaare bëggoon na commentaire daal ci épisode bi jàll tey ci kaw Marème rek laay daal ba tey ndax man bu ñëw rek ca Marème lay daal doxalinam moom moo rafetul ci njëlbeen ba malgré que soxna la mais fukk la la xam bu fekkoon te tey lala da koo xam cey ci xameen bu jaar yoon ah kon bu la la comporté woon ni mu comporté woon ak moom mm, man Marème lay faral waaye imaginel te nga doon aw biir kër sa jëkkër indi beneen xale bu jigéen sa kaw lal mu jógewaat foofu mu takk ko indi bi indi ko ci biir kër gi yéemuñu foofu mu ah, kooku ñëw di jëm a defanteeg yow yeey ah naan dafa gën a jongeeg dafa gën a kii am yooyu neexul ci xol heureusement ba mu amee goro woo xam ne da ko bëgg ci xolam ndax goro bi bëggul kenn ku laal la ku laal la rek ah noonam ngay doon moom lay wane noonu ak ay xaritam yëpp gis nga liñ wax tey Mariam ak niñ comporté woon ak moom ak liñ ko yekk tey ak niñ ko créer tey ba Mariam di jooy waaw en tout cas daal jigéen buy doxee ni muy doxee moom bu yóbboo xam ne créer nga sa bopp ay noon waaw noonu moom noon la rek fu hmm? muy jaar ba mën laa yàqal doo ko xam waaw mais épisode bi am na solo am na solo trop. waaw asalaamaaleykum sama waa groupe maa ko ba pare mais man de li ma gis sama xalaatu boobu mooy Marème moom su doon maa moom ma ñibbiwaat sama kër toog sama appartement sama jëkkër bu ma soxlaa dina fa seet.

Eh, nu mu doxalee ci kanamu yaayam loolu dëgg la ci bopp góor ñëpp war nañu di def noonu dëgg la yaay yaay la mais tamit sëy yi buñ ci di duggal yaay yi waaw ndax yaay yi ñoom lu leen neex rek la ñuy xool rawatina Cheikh Diagne moom yaayam moom dafa faral laal la pour intérêt waaw waaye nag laal la na xam ni maire bi moom ku mu dogal tubay ngemb laa lay xaar waaw bis bu koy teg ci suuf bu mu ko bett waaw moom sëy na ci maire génn goro yi génn ci. bàyyi xale yi ñu sëy seen sëy yi boo xoolee divorce yi bëri na te xale yu ndaw ñooy divorce waaw sëy par parloo moom du dëgg du yoon waaw laal euh, mareem bëgg na seex seex bëgg na ko te jullit la diine may na ko mu takk ñaar ba ñett ba ñeent takk na jabaram waaw ne gaa yi ñëpp tiire leçon ci seex nañu wax ak seen yaay yi ñu génn ci seen sëy yi ku ci nekk cër ba nga warloo ñu jox la ko waaw te Cheikh Diagne moom biram rek war na koo yee diggante euh, nu mu tuddati njole kii euh, Jalika ak euh, biram ni yaay ji ni mu ci duggee woon noonu ba sëy bi tas loolu rek war na ko mën a yee waaw franchement série bi neex na et tout waaw bëri nag luñ ci mën a wax mais rek lu mënul ñàkk rek lañ ciy wax incha allah. asalaamaaleykum asalaamaaleykum jërëjëf jëfati waa maîtresse de l'homme marié ah, gëj naa dugg nag torop ah, di kontaan ci yéen rek waaw di leen fu fuñ toll nag ñun waa Suède ma waxati rek ah, ci Marème Marème yaa ngi góorlu nag gën a la góorgóorlu man nag li ma gën a loon booy séq ak bi waxi jàmm wala laal la wax yu jàmm nga di ko enregistrer moo gën parce que enregistrement sauvé na la benn yoon bul nangoo nangooti mukk ñu bett la parce que mun nañ laa tuumal loo xam ne waxoo ko waaye bu fekkee ne firnde am na mën nga cee mucc parce que pexeb noonu di tuuti noon mun laa fexe ba bëgg la bëgg mënut a bañ waaye bañit mënut a bëgg Marème kontaan naa si yow torop man la nag sa tata bi nekk Suède maa ngi lay sant di la gërëm góorgóorlu rek ca kaw ca kanam